nous euh, ngi euh, ci seen émission ni ñu ko waxee waxtaan waxtaaj euh, ak Abou Diallo Abou dañuy jàll ci ci Barthélemy Diaz ndax moom it bokk na ci wi parce que xam nga conclusion dialogue na dialogue bi, dialogue politique bi je pense que nous ko defoon le 9 juin su ma juumoon ñu ne tëj nañ dialogue bi dialogue boo xamante ne ba tey génnul ci li ñu war a wax damay relancer rek moom Barthélemy waxoon na ne moo ko depuis janvier bële de manière officieuse. Macky Sall woote de manière officielle bi muy grandement grande mosquée je pense est ce que dialogue bobo nit ni japonais technique tëj na est ce que dialogue boobu nekkul muy kunne ba léegi ni ñi assurance bingis gis ak euh, genre mel le ku coup yegul li ko nara li nag li ko nara dal parce que article 61 bu constitution déjà su fait ne confirmer nañ daan biñ ko defoon euh, moom moom sax ni mu waxee na assemblée moom da koy bien vrai que communiqué ci na ci noo xamante ne ñu bëri niñ ko gisee rafetlu wuñ ko muy benn ñaareel bi dafa mel ne ku gëm ne mairie de Dakar moom moom du ko ñàkk te moo ne ci juriste yu bëri li ñu wax ci ñi ci ëpp euh, li koy li koy renversé fële moo koy maanaam tsunami lay doon du ko épargner ci ñaari post yëpp moom nag mu waxee ni nangu na ne wala gëm na ne bee moom dana ko ñàkk ba sax mu soofantal ko ne lim ko nekk bari na lim nekk député moom nee na bari na soxlootu ko nekk euh, sañ na ko donte ñun gisewuñ noonu mais beneen bi mooy mu jàpp ne daal lii lu lu woyof la ba tax na sax du ca dem ba joxe rendez ne bu kenn ñëw foire la koy fekk euh, dafa am ay artisans yu muy dajal lu yu mu fay dajeel waxtaan ak ñoom sargal leen tatagal leen ci waa Ndakaaru bu ca noppee bu ca noppee dem fekki Xalifa Sàll ca àll ba ndax wéet na fa te moom daanaka mooy ndeyjooram mooy waxtu ndoom euh, ndax ñi jàpp ne comme ni ma la ko laajee léegi ne mi ngi ci dialogue ba tax moom assurance l'appareil politique d'état du ma ne état mais l'appareil politique ndax ñooñu day dëggal seen seen njort. no xam nga euh, mbirum Barthélemy Diaz boo ko jëlee angle dialogue xam nga Barthélemy Diaz euh, Khalifa Sall wàllu dialogue ak waxtaan xalifa Sall ci boppam moo ko géreel boppam. bi ñu tëjee Khalifa Sall di woote dialogue dafa yónni Saliou Sarr. Mhm. yónni Soham ni dem au nom de la ville de Dakar donc moom mu ngi woon ci kaso bi ñu teg ko métti teg ko naqar mu dem waxtaan ak président bi ñu bi mu génnaatee ñuy waxtaan waxtaanaat ni waxtaan dana am moom xalifa Sall lan la leen wax damay dem waxtaan parce que état la. donc da nga bëgg wax ne Khalifa moo def donc dama wax ne taxaw naan Barthélemy nee na maa dox waxtaan bi maa def sama digg déedéet Barthélemy li mu dox. mooy digganteem ak Ousmane Sonko nan la mënoon def ba ñu gérer parce que communication na ñu waxtaan ak Ousmane Sonko nu ñuy waxtaanee ba gérer parce que Barthélemy à en certain moment donu xalifa Sall soo am jëlaat mairie bi Barth gëmu ko woon. Mhm. xeex boobu moo ko mënee mu rapproché wu politiquement ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko aussi les gens disent que ni déedéet Barth jëloon mairie bi moo ko gënaloon ñoom soo am jël ko. lam ko wonoon moo tax. non